asalaamaaleykum mbokkee ñooy saytaan ñu del si waat ak yéen ci seen beneen programme yi waañ bi fii ci QTV ngeen ànd ak seen xarit seen soppi la di kanko comme niñ ko baaxoo di def euh, time bi bu jotee rek euh, tey ñëwaat ne ñu ngi fii nga xamante ne mooy Pokoloko ko nag mu ngi Diplex Junction ñëpp xam nañ fii euh, te tàmm nañ fii nii tey tamit dinañ xool tey chef bi fan la moo génn ak ñun. ak tey lan la moo tooga ci biir waañ bi bala ñuy dugg ci biir waañ bi di jaajëfal bu baax a baax euh, Jalik shop euh, foofu ca Sukuta euh, moo jaat si outfit bi Jalika jërëjëf nee naa leen du jaay jesner kese mu ngay jaay ay européen ci biir shop bi foofu ca Sukuta maa ngi koy jaajëfal bu baax léegi li ñuy def rek mooy ñu dugg ci biir rek ñu daan daal di tàmbali li nga xamante ne mooy tooga bi te bu leen fàtte ne dinañ am ges ci biir kër gi ci kanam tuuti dinañ xool kan mooy doon suñu guest bi ay ñu dem su ko defee rek mbokk yi ma dugg ci biir waañ bi rek euh, fii lañ nekk euh, ci Pokoloko léegi ma jàkkaarloo ki nga xamante ni tey mooy euh, dugga maanaam moo dugga waañ moom mooy tooga tey dinaa leen bàyyi rek mu daal di introduce boppam wax ñu moom mooy kan ak tamit tey lan la ñu amal ci biir waañ bi sëñ bi na nga def. jaama ngi fay tur waaw maa ngi tudd Moustapha Camara. Moustapha Camara ok mm-hmm. from Jara. originally from Jara. dama jaaran goldi ko yo manke ñoomi ngoodi de ay manke bade bun ko faranti <laughs> ah, bade bun ko ani mool fole way ñomanke ñoomi ngoodi ok bi Moustapha a waañ tey lan nga ñu amal ye maa leen amal grill barakuda servi with mashed potato waaw euh, maanaam jën bi végétable waaw jën bi sedda sedda waaw oh, ok waaye dama jënee yax bi dem set amut yax yaa ngi digga bi yëpp laay jéene yaa ngi ndaw yëpp laay jéene ok Moustapha loolu soo ko defar lan ak lan nga soxla yee maa ngi bugga suma eh, am naa suma mix spice yi comme dama jël ay saf safal yi ma boolee leen day gën a gaawloo tooga soo busy yaay am ten eh, ten people ñëpp ñu ne yow la ñoo xaar soo buggee jël fii jël fii jël fii def dafa awee sa time soo yow laa jël ma booloo ko def ko benn xam nga waañ bu nekk da nga am sa sigiri so loolu laa boolee naa am suma diw ma am suma limon xam nga jën moom dafa bugg a limon bëgguma limon ko rek ma am suma benn doomi limon tam yooyu yëpp si lay dem suma koos ok gis naa fi tamit uh, uh, green pepper ak tamit ak li uh, cabbage yooyu daal yooyu laay tegee aside mm, pour mun ko su ma tegee mashed potato bi ma teg vegetable aside ma def suma décoration nga slice ko because lii njëriñ bu fa nekka mooy ne day gaaw a ñor ba pare dama si foofu lay def seasoning bi waaw soo déggee ne dama koo dugal si siin ba i one hour two hour maa de ëllëg baax na de torop waaye soo ko muntee lii tam baax na si loo xamante ne pour nga def ko daf koo gën a nga giril ko moom ok léegi lan ak lan ngay use pour season ko. waaw mooy suma mix spicy bi. mix spicy bi boobu. ok ak suma limon. limon bi jinja bi. Mhm. laaj bi laaj bi. ak diw tuuti. ak poobar. poobar waaw yooyu yëpp. poobar yëpp yaa fi si spicy bi ok. yëpp damaa def diwlin bi tuuti. Mhm. pour mu sticky pour mu jaaboo daal. waaw. ma defaati ma natal bi lime. boobu lime la limon limon am na solo si jën. waaw kay. waaw parce que dañ ko si war a fiir. ji nga lu maa def. Mhm. jën bi nii laa ko def. si jën bi si biir si jën bi bii moom. Mhm. kenn di wax ne lii safu lii ba di ko da koo giri moom te du jeena. ok bu dee daa ma ko defal si ndoxi limon mbay xilifin mhm. su fa yàggutee mun naa jeena waaye bu dee loolu la foog nga bàyyi ko fa mu yàgga. waaye bii moom waaw léegi maa maa ko grill léegi ma teg. ok waaw. léegi pour ñu amul grill la nag comme façon ni. grill waaw comme yi nga def ko foofu waaye safara bi da ko def mu loo. wàññi ko ok. nga wàññi ko beeg parce que ñun fii am nañ grill am nañ microwave léegi da nga koo grill danga am kola boobu nga. Mhm. nga def ko si plate koobaa ko dugal ko si microwave mu foofu la moo finissé daal foofu yow nga defal sa sauce sa potato bi talifi mhm. ni balaa muy pare nga teg sa plate ok waaw eh, gannaaw bu ñu cuisine suñ jën bi ba pare mu ngi noonu di ko grill léegi ñu laajaat daal Moustapha gannaaw bu mu ko grillé léegi fu ñu jubluwaat Moustapha fu ñu jubluwaat. léegi su ma jën bu ma grill mhm. léegi dama ko jënee ma dugal ko si microwave bi. si microwave bi. maanaam fii ni ñoru daal. loolu leen dere maa ñu def ko si oven bi ñu def olive oil tuuti ñu koobaa ko ak clean film. am nga kër amuñ loolu. amuñ euh, microwave am na kër yoo xam ne amuñ. amuñ microwave waaw waaw. léegi comme soo ko grillé ba pare. suñ ko waaw suñ comme li nga waxoon ne amuñ grill soo use frying pan foo nga def low fire sa fa da nga ko def mu wàññi. soo amee loo ko kubéer soo amul kubéer tan def ko mu loo rek nga wàññi ko wéeg ba mu ses nga doog a def sa spice yam nga soo ko faa def saf safal am na ñoo xam te ne ndox la comme limon nii nga def ko fa nga def sa boota nga ca boota boobu moo ko gën a ñor loo su la neexee sax mu nga koo togga dugal loo ko si microwave bi waaye soo amee ñeneen dina jënd bota nga def ko si frying pan fi nga koo grillé parce que soo ko def da diw tuuti. diw tuuti loo xam ne dafa niin daal. dafa niin soo paree nga def ko fa nga def nga dugal sa jën bi foofu. nu moo demee nanga nanga. noonu la moo ñoree noonu la moo ñoree. ok soo bëggee mu jëlaat ñor nga def sa bota bi tuuti si kaam. ok euh, a yomba na mbir moom yomba na mbir ndax. Euh, yomba na ndawal. waaw léegi li nga léegi nu ma ko koobee nii dama ko dugal si microwave ko just 10 minutes 10 minutes nga génné ko yeah. ma génné ko ma ñëw saak ba ma fekk ñor na ok ma bàyyi la nga dem si michael microwave yeah. si kaam am foora defa shrimps bu am sauce ma tek ko si kam si kawam waaw ok legi ñu def so loolu la ñëw def ni legi nga te ñu ngi amé fi fish stock yo am dene ci fish lañ ko jene si fish ok ay ya ma de bo fay ni ok ñu ko baxalee ak laaj. laaj ok onion carotte green pepper yi nii lañ ko baxalee léegi ndox bi rek lañ ci soxla. ok lu si des ñu génnee ko ñu soree ko tuuti. ma def suma oyster sauce bu nekk tuuti tuuti rek waaw a teaspoon ma def suma spice yi li nga sauce bi ma doog a def. しましたぜléegi-léegi kan ko soos bi pare naa léegi ma ñëw defar maas pare doole gannaaw buñ dugalee suñ jën bi ci biir microwave bi Euh, ba defar suñu sauce maanaam muy shrimps bi ak soble bi ngeen gis nu mu ngi ko doon euh, defar euh, léegi nag Moustapha léegi da ngay ñëw li nga xamante ne mooy mashed potato bi léegi ma bàyyi la nga defar mashed bi tamit. te mashed potato dafa am ñu ko dee mën a defar dañ ko dee xooli. Mm-hmm. doga doga doga koo baxal afta su la nga koo baxalee nii tamit. waaw na man dama koo pile. ok da koo xooli. xooli. léegi after yëri kanku dama dog bota bi. léegi dangaa dog bota bi ok. waaw ma def ko frying pan bu ma defee am na ñoo xam te ne dañ am mass potato machine machine bu ndaw la dee nekka nga faa ko waaye ñun amuñ loolu waaye léegi mun nañ koo defee nii soo loolu laay jël ma koo tàngal di ko presse am na ñoo xam te nuñ ko jëlee dañ koo presse si bool. waaye man dama koo def nii presse ko ma def pinch of salt just to test ma def salt salt ton pepper ma def poobar tam tuuti rek ma yëngal ko waaw may amee crème crème boo xam te moo war a def si masque bi tam crème tam dafa am on cafkaan soo soo ko fa defee da nga ko dee test léegi nag gannaaw bu mu defaree li nga xamante ne mooy mash potato bi gis nga nu ko defaree dafa jël mash bi rek mu dal di ko dugal ci ah, sugeer bi ah, def ci bota daal di ko mash ba yëpp mooka waaw Euh, mu def ci li nga xamante ne muy euh, cream boo xam ne tamit daf koo def jox jaf ka daf koo neexal léegi fa paree rek euh, Moustapha léegi dañuy léegi damaa ñëw defar suma plate bi mu nice. first of all li nga lii kakumba la. li nga dama ko dugal si ndox. Mhm. ndox gu seeda pour mu gën a ubbeeku daal. ndox gu seeda bi moo dee tax mu dee ubbeeku te forcé ko. Mhm. soo ko bëggee forcé mun naa dama. Mhm. waaye dama ko def ni style. ma dugal ko si ndox bu seeda ndox bu seeda guy ice ma dooga ko ñëw teg suma plate bi nga teg naa bii tamit mhm. léegi ma ñëw defal suma rose flower bi rose si tomate waaw tomate <laughs> ak lifin mun nga ko def si loo ko mun daal anyway waaye am nga moom foog nga jëne ko si loo xam te ne dafa soft dafa nooy tuuti pour mu mun a lemu maanaam lépp pour naysal plat yëpp si la booga daal léegi fu ne nii pare na nii yëpp defar nañ suñu soos jën bi pare na. Euh, vegetable si tamit sotee léegi euh, Moustapha ma waaw léegi dañoo dem jël jën bi di kangu fu pare na. Mhm. everything mhm. jën bi fii lañ ko taamee su ma ko defee dañ koo jënee. waaw jën bi lu mel ni rafet na di. ki nga jën bi. waaw. léegi duñ def dara dañoo njëkk a teg maas bi. maas bi waaw. ñu jël suñ ñaari kudu loolu lañ ko muulee pour mu gën a rafet balaa ñu koo tegee noonu li nga suñu maas frère bi waaw léegi dañ koo jël defal ko ni nice ñu teg

suñu barakuda bi léegi léegi kanku bi fi mu nekk nii plate bi moom pare na léegi soos bi mhm. dama ko def separate dama ko def si bool bu ne ma teg ko kaa seen diggante ma jox ñaari kurit ndaw waaye mun naa ko def si kawam tam waaye borom am su ko bugutee loolu tamit la soo moo tax ñu koy dasambaare soo ko muntee nga mhm. def ko si booram waaye ñu def ko si bool bu ndaw pour ñu jokkoo gaay man daal loolu laa gën a bëgg daal. léegi nag mbokk yi fi mu ne nii wat li àgg na si ndong li pare neen is done ah, tooga neen ba pare ah, comme nu ma ko waxee rek ñu ngi fii ci a Pokoloko ah, ci biir waañ bi ñu ànd nag kii di Moustapha mu daal di ñu toogal tooga bi nu mu tuddaat sax. li mooy grill barracuda toppings with shrimps eh, tooga bi nag. gis ngeen ne yàggut euh, biñ ko dooree ba tey léegi amatul sax ay 20 or 30 minutes léegi fu mu ne nii euh, pare neen euh, waaye ci kanam tuuti dinañ dalal suñu gan bi tey koo xam ne muy ñëw daal di mos wax ñu rek tooga bi lan la sax ñu amaa moom tuuti waxtaan Moustapha ma bàyyi la nga tàggatoo. Eh, maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen gërëm yéen liggéeykat yi di gërëm Q TV ngay def lu xarañ ci dëgg bi dëgg bi ñëpp a yàlla ñun gula fan. yàlla yaatul loo seen compagnie bi may leen wërsëg bu doy daal weer maa Pokoloko suma boy koñ yëpp ataaya kansulo bi xam nga ñoom yëpp ak suma chef bi Omar Jaaju ñoom Liana ñoom malen ak suma oncle ku ma dugal si liggéey bi ni Ansoumane maa ngi nuyu suma boss yëpp ñoom Baabalo ñu Sénégal mais ñoom Landing ñoom ñu bëri daal anyway maa ngi nuyu suma jabar di nuyu kër yëpp. di nuyu suma friends yëpp ku ma neemul ku si waxul staff Pokoloko yëpp. ñëpp ci biir daal lii daal ku ñëw Pokoloko daal di nga ko am. yee ku ñëw fii daal dinga am lu ëppale. Ah, ah, ah, soo buggee lii di nga am soo buggee leneen di nga ko am. bii moom am nañ fii lu bari yoo am te ne a ne te te yombaa gaaw lii sax man kenn la lii moo tax waaye su nekkul loolu. da ngaa toog 5 10 minutes ñu génne la sa oral. génne ko dëgg la solo te xalti na torop lu fi nekk yëpp ay xalti jërëjëf maa lay gërëm yow tamit bu baax a baax euh, léegi nag mbokk yi li ñuy def rek dugal suñu gan bi mu daal di mos tooga bi. waaw parce que. So I'm here to introduce my sunshine mocktail. Oh, ah, okay. That's orange juice, mm. grenadine, lime, and sugar gannaaw bu ñu toogee ba pare ba yekk léegi ah, comme ni ma ko waxee rek baa ngi nii toog na ah, kii di Cheikh Omar Sawaneh ka mɔgɔ nin bɛ anti ndogon <laughs> Mom lañ am um, moom nag kanam bi min nañ ko di si di si télé yi um, mu ngi si movie si mu ngi ak leneen ak leneen waaye dinaa leen bàyyi Sir Omar aya fa introduce aya fa moo lee jumalem Sir Omar te jumalem Sir Omar te um, Abaraka Bake um, Kanku uh, dalam Sheikh Omar Sawane um, aktor film director film producer and of course uh, CEO Fandema Multimedia Center. Mm-hmm. Yeah, basically uh, video produce advertisement, marketing videos and other things from Fandema Multimedia. ok Okay, gannaaw uh, bi nga introduce sa boppa if I introduce kit Cheikh um, uh, tey nag dañoo dugal lépp laaka yëpp la ñoo laaka Cheikh Omar laaka yum dégg yëpp tey dinañ ko laaka ci biir waañ bi <laughs> ok Cheikh uh, Omar kabiri if I introduce ko italim Cheikh Omar ti ngamira mo jamali e lon sai mu nem jumalim Cheikh Omar ti just um, domandin dorong at least ya lonem nge invite waañ bi programme oto comme bi yalondro ni ko wañ bi wolem fenkoti wañoti eh, tabiro exactly wodron nem bi wolé be fola bi am sia omar ite waño je ñadile ni ko waño ite ibe waño describe la munela um, comme tubabol ka fo ñame comme ñe hadamadiŋo dañaje Uh, there's something very important meme mol koto ka fo spinal cord so koba wala wanyo technically is a spinal cord of every home ñe corda korda jo hadama de hadama de je wanyo late la um, spinal cord de c'est omar um guess e um, e fututale muso be bulu ade est ce que la muso ay tabiro no muso ay tabiro no de comme yen je nyame ibe njele yo imuta ko mu konkoto le ani so e balo na muso ay tabiro no le am na ngi domo di ma do ron kawle domo so kono comme ikole ite domo dale mi la choice te um, hope aka domo da tabiyele every time fo aka aka dish aka change le anka faline comme uh, nga nga fo nyame domo da dia tangele bada ya lon domo si fal do fana mbijele kam men tabi no ya lon ko akuma ya dana jada kende ya to <laughs> thank you all right thank you okay mm-hmm. all right thank you all right okay thank you Thank you so much. Thank you very All right. much. <laughs> uh, Sir Omar, ite mu advice di eh, sunkutola o momo mi alonko uh, nyata duna wanyo kono pure tabiro ke ite mu advice uh, di musola. Um, kami muso ñi lafta i kema mutala ñi lafta i kema ye sidula kelen ñi lafta i kema ye kanu ñi lafta i kema ña fintita kana wandi domoro domo ila waño ñante je nola le because ñeo ke ke o je malo mibinte personally ke o ke o ñia ñi lafta si ñia kono topotono ya la fengo ala dum fengo topotono abe abe sila le so men si men fono na sister solie ya kata isikara du waño kono isikara domor kendol tabi manyole ni ñi mal jiita ino e pino domor kendo tabi ya sab o mano e domoroke fa kono e fa ani membe na wokola isi o sotono uh, korda kono e bajale be manyol mut soto no e bulo kono bat jaman to la jamano bi na sister soul restaurant domoro ole moltinya bi so it's um, a a le bat a kummayata baake waño a muso el waño no e tabiro no baake is very very important mhm. kon suma mbokki jigéen ñi ñoo ko déggandoo rek góor moom boo koy nax rek biiram bi tamit boo na si ndax soo toogee lu ne nga yekkal ko sa jëkkër dafa yàkkamtee ñëw kër sa lekkal lekka bu neex boobu noonu foog naa loolu am na solo se euh, Omar lu wax foofu noonu janina domoro be suma yàlla nga mm. ah, domo Then after in Limpa later, it's an comment, ah? <laughs> no problem. tey seen programme yi uh, waañ bi la fii ci uh, QTV nee naa leen tey ñu ngi fii ci uh, Pokoloko gannaaw bu ñu saafee suñu um, barracuda fish bi lekk nañ fu mu ne nii macha allah dinaa leen bàyyi ak kii di Cheikh Omar ba tey rek ah mu wax ñu rek naka la gisee lekk bi Cheikh Omar noo gisee lekk Um, lekka bi moom neex na. Ah, good. <laughs> you know amaa ku ko toogee nag but lekka bi noonu is ok. is ok enjoy naa ko ba man bi moom su ma ko mënee am every day. <laughs> dina ñëpp ko loo ko. léegi moom léegi moom bàyyi nga domo daal. <laughs> yeah, barakuda it was nice. The mm-hmm. mashed potato was fine, and of course, with um, I like it's not very spicy. Yeah, at least it's um, very. Um, I think I enjoyed it. It's nice. Yeah, yeah. Okay. Um, Come. Uh, dama ko day faral di wax always suma I si I uh, gis scary guy always yi always dañ de. jëfandikoo lii di um, saf safalo mi yàllon ko ibe botasaay ibe siyaring ni tata sol kono na ka use but ni aye ala kino ñing ama wo saf safalo beek ye ay munki je drum was um, ñing um, kolem mm-hmm. aning fenko other spices mi lonko they are natural yeah. in fenko pobaro i order male use hope ite ibela filale ila muso yo saf safalo use korda kon well the, all the time call for fungo because most of the saf safalo can may use there are lots of other chemicals that has um, side effect on our health mm -hmm. so coming nyimi nyimi alonko natural soto mi alonko it's available here they'll prefer wo use na Naswal Kona because of jada Kendea. Mm-hmm. Because mm -hmm. all these spies mulka na Bangkoka malo ika dada nyame malo mu content ne ba kono kon nyimbe tabiro la fana um, description men kara packet obala mm-hmm. ika do fango jile they don't tell ibuka fu ibuka buka save packet obala inyanda ka use nyame ka muso do ka ele dron ka juru kale ro kono ni ni kola le mi ka yele mala ni fo ni manola kola be fale <laughs> but you don't know what's in it iɗonno wokkolo muneba kono so comme ñeñimen tabiten i know um, is very good is mm-hmm. healthy of course you know najjata kendeya kano man siya safalol man siya kono so jala wo sifa ñin ka wo soto na baluwo kono at least fanan si jata kendeya so tanyale um, li ñi dese si waxtu bari wutut waaye Cheikh Omar balaa ñuy um, tagoto um, ila movie ibe mitole how far? Because Kabiri Lanjiro Molmeje. And how far? <laughs> <laughs> you know, Lanjiro was uh, a good one coming uh, mngafonya mojamale Lanjiro jiwe mm-hmm. and then Gambiano it was uh, nga Lanjiro kele as a pilot mm-hmm. Jiwe Gambiano action of Kalamuneti because jama jama nka si na kona Donka ka Gambiano Bukamol makwe o Gambiano malafi Gambian fengola. Mm -hmm. but from Lanjuro, of Mintada for the first time in Gambia, complete six months mm -hmm. without interruption, without repeat, uh, re repetition of any episode. So at least it was a breakthrough for Gambian movie industry. Mm -hmm. And then I want to assure Gambian that we are also working on a bigger, bigger project. Mealongo mm-hmm. very soon is gonna hit your TVs again. And then of course Lanjuro season two, Benakan very soon, yeah. Even when uh, Gambian just a quick um, yeah mbe for fola gambian uh, oil drone komin a ñomuta nga ke kelinti um, gambia mbele tamu so mbele tamu banko meti nga bulo fu nyoma nga na banko dada because ñinga ñi jan tiñata tiñata mbele mm-hmm. uh, on the side of peace and stability in solo fono ñinata na jata kenya wala na domoro la kola safo na gambia musole e bulo tala e kañi uh, foreign fen ko mi use comme saf safola ni oda spicy fen ko min import na e bulo tala wala adin ke jama bi min ka mol batani han tulo tulo ka mol disturb ba ba ba kele and then Gambia 95% of our home do ni man tabiro ke tulo e na e bulo kono ah e <laughs> e ma <laughs> fo de so e mere e man domoro tabi -hmm. but then ñinga uh, mbulotara nyin uh, koma tuluma fengo la si adlo fana be kummaya la bake na jada kende atole insolo fonale and then uh, kanko baraka bake i really appreciate this um, invitation and i hope to be having more of this inshallah, inshallah. yeah thank Jere you very much <laughs> <laughs> thank you Omar mm. eh, jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan lii laa leen amaloon seen programme yi waañ bi comme niñ koy baaxoo di def rek uh, fii ci QTV di leen gërëm bu baax a baax ko xamne xam ne rek jëloon nga sa time di seetaan programme bi waaye di gërëm bu baax ki nga xamante ne rek tey moo doonoon suma ges bi Cheikh Omar maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax kontaan ci moom di la gërëm si teewaay bi waaye di jaajëfal ah, staff yi Pokoloko yi yëpp waa Pokoloko ah, maa ngi naa ji gërëm di leen sant bu baax a baax ak ki nga xamante ne mooy chef bi Moustapha maa ngi koy jaajëfal bu baax waaye tey nag ki nga xamante ne moo génn si ah, outfit bi Jalix shop foofu ca Sukuta mooy borom jesner yi duy jaay jesner kese dafay jaay ay européenne ci biir shop bi ku bëgg a lu yëre européenne jees jesner rek demal seeti ko foofu ca Sukuta waaye di gërëm bu baax ñi nga xamante ne ñoom lay jaakaar lool ñuy wane yëpp di génne yëpp Mamat fay ak Moustapha Kinte suma ñaari badi bu kay maa ngi leen naa jaajëfal bu baax a baax seen xarit seen soppi la woon Lady Kanko jox leen dig daje beneen dimanche incha allah ci beneen programme yi waañ bi ak yeneen tooga ñu yendoog jaama bye bye